maa ngi présenté wu tur bi naka la. man maa ngi tudd madame Mbengue Ndeye Comba soxna ci kan soxna si Makan Mbengue taawu Gaston Mbengue. d'accord madame Mbengue gannaaw ba la jàllee sa goro bu baax bi nga xamante ni tey moom moo fi daal di bàyyeekoo yan kàddu yi sedd rek nga ñu man a jox ci moom. waaw euh, papa mooy papa bi gën si papa yi mun naa man ba ma fiy soog a sëy si xale bu ndaw laa woon. Mm-hmm. waaye moo daan yóbbu école di ma indi toppatoo ñu def ñu kon ay doom yu mu man moo moo doon wax ne moo doon sama avocat man dama ñàkk pap ñàkk avocat ñàkk goro daf ma féete woon fu bari di pap bu bëgg njaboot bëgg ay doomam bëgg ay jabaru doomam bu ñëwee ambiance indi waxtaan na ñëpp na ñëpp booloo moom daal macha allah Gaston Mbengue bëgg na njaboot bëgg na famille loolu daal laa xam ne moom mun naa ko ko seedeel ñu ñu jàppee rek ndax man déjà ba may soog a tukki Italie man ma naroon dem man rek ndeysaan mu ne déedéet bu ma dem man rek il faut ma am ku ma gunge mu jël yaay makan ne ko jëlal mama nga yóbbu ko ba fu muy sëy nga tette ko wan ko nu ñuy defee wan ko lépp lépp ba mu miin nga soog a ñëw xam nga loolu ku bëgg nit rek moo koy def papa yàlla na ko yàlla xareel àjjana firdaws naka nga yëgee rek tiis bi nga xamante ni moo daal di ñëw rek dal ci seen kaw métti métti métti rek métti yàlla daa def li gën mënoo ko lu ko kon daal mën nañ ne wéetaay dab na askanu Sénégal waaye rawatina yow mi la nga xamante ne nii sa goro la sa avocat la sa xarit la man waxuma man sax waaye sëti waaw paa il est là que pour ses ses petits enfants fii ngeen gis fii la daan footballé a ay sëtam di teg musique di ku fecc mu lay jox xaalis xale di fecc muy kontaan bég moom daal na xale yi bég rek soirée pyjama sax daka daan toog fii di ko def ak ay sëtam macha allah bëgg njaboot mm. naka moom nga xamante ni daal dina ngi doon encouragé rek di ñu dalal. di rek. Mm-hmm. jàmbaar la woon. rek gëm yàlla jàmm ñu koy toppatoo mu nekk ak ñun duñ ko bàyyi mu wér duñu bàyyi mu wér vraiment. c'est un père merveilleux kan nga ko mujjee gis démb ndeysaan démb avant moo jot ngeen a wéccilante ay kàddu ndeysaan ko gisee tuuti ci kanam ñu ne dafa papa daal dina génn àdduna métti sant suñu borom nag métti na ñu ci ko ñaanal mu gënal ko foofu ni ñu taxawoo woon ñun njaboot gi yàlla na ko yonent bi sallallahu alayhi wa taxawee noonu incha allah ci barke Seydina ñu rek nekk benn comme jàngal ba ñuy sëy si kër gi ñun maa fi jiitu nekk premier jabar premier jabar ci kër gi mu leen booloo leen nekk leen benn liggéey leen loolu la paa xam Gaston Mbengue ku ko xam-xam ne boole rek médiateur la ci famille am médiateur la ci Sénégal macha allah. jërëjëf jërëjëf ñu ngi jaale bu baax a baax di la am jëf maa ngi leen di remercier bu baax ah mu dolli muñ rek xam ne yan bi diis na te pa yàgg na ko initier pour mu doon ubbi ko ëllëg waa di ko ñaanal moom tamit te di ko jaale di ko jaale di jaale famille bi yëpp ay rakam yaayam tata ñëpp ñëpp maa ngi leen jaale famille Mbengue askanu Mbengue ñëpp maa jaale Mm. ginnaaw na ñu la jaale di bokk naqar wi ak yow ginnaaw bi nga xamante ni kii ci sa kilifa muy Gaston Mbengue jóge na fii ana lan nga nu mën a wax ci waaw bëri na bëri na koy jaale Sénégal di ko jaale àdduna di ko jaale monde entier yëpp di ko jaale famille di ko dagee si Bira Sène ba ci suuf di ko dagee si Modou Lo roi des arènes ba ci suuf di ko dagee si Pape Abdou Fall ba suuf di ko dagee ci Père Cheikh ko ci suuf ba kuréel yi nga xamante ne yëpp am na ay tet am na ñu ko jiite ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale Père Gaston yaakaar naa ne moom ku nekk mën nga koo jaale sa moroom quoi. Mhm. mu nekk koo xamante ni yàgg nga ko kotuwaay yàgg ngeen a liggéey mu doon sa patron boo doon wax la gën waaw bëri na xam nga Père moom du ma ne emploi ak euh, patron wala nit ak ku koy liggéeyal wala leneen mais ñi mën a wax si moom bëri na bi ma fiy mujj suuru korité ko maa ngi fekk si kaw. boobu laa ñëw ma kan ma ah Modou sa père de tey moom mënoo koo gis waaw bu yeboo daal nga ñaanal ko mais tey moom mënoo koo gis te loolu mi ngi doog a am man bu ma ñëwaat danaa may Modou Anta kaay nga toog fii des fois bu bëggee jóg bu fi Mouhamed nekkut wala Issa man la naan may ma ma jóg ma jàpp ko loxo mu jóg mu nekk koo xam même ci biir feebar bi sax day waxtaan ak yow boo ñëwee ba ngoon jot du bëgg dara lu lay metti may dem mu yëkkati paas jox ma. wax dëgg yàlla nekk nit ku baax man lu ma wax si moom rek am na ñu ma ko gën a mën a wax amoon ay naal yu bëri yoo xamante bi nii nag daan na ci waxtaan ak man mais jaam ak pexe suñu borom ak dogal dañ koy ñaanal rek fee mu tëdd ci armeelu Yoff suñu borom xaare ko àjjana te yeexañu ndax rafet nañ ci njort nag ndax ak dëggoom ak dalam ak ñi dëgg tey bu fekkee ne dangaa ñëw ci moom wax léegi dal na ma bala ma daaneel day woo nga doon wax def ko apporteur ne ko diwoo fi nekk de lii la wax kon yaakaar naa ne képp kuy jaxase wala ngay rambaaj wala ngay seetaane feneen nga koy defee mais doo ko defee ci kanamu Père Gaston nekk nit ku koo xamante ni Sénégal ñoo ko ko euh, seedeel waaw waaw am na lool am na parce que euh, te naqariwut a waxal nag donte kilifa la nag di déggante kilifa yëpp am na benn suur dafa am benn jafe-jafe bu xawoon a am ci làmb xam nga doo mën a détaillé comme wàllum sit la te nit ki dem na léegi bi coow li baree ba naan entre Gaston Production ak ñeneen ak ñeneen xam nga ba bàyyi ba makan xëy nekku fi Abdoulaye Ndiaye nekku fi Mohamed nekku fi kenn nekku fi man kese ma taal sama moto yoxoo su ndànk ñëw ñëw ne ko père man ne damaa bëggoon tey ñu waxtaan mu ne ma waa baax na ma commencé wax mu may déglu pendant six minutes ba dix minutes ma pare mu ne ma li nga wax dëgg la de te maanaam coow loolu demoon na ba famille làmb yëpp jot nañ ci mu ne ma léegi loo ci xalaat ma ne ko jëlal diw nga jox ko diw nga bàyyi lale parce que yow 92 ba tey yaa ngi si làmb ji kenn mës ta def lu lay xeebe ak yeneen détail kon nag ñii seen papa ngeen ñii say jarbaat lan ñii say sët lan kon yaakaar naa lu rafet a fi xaj mu ne ma wool ma Abdoulaat ci sa téléphone ma woo Abdoulaat def ko main libre mu ne ko Modou Anta dayee fi ñëw nee na lii nee na lii nee na lii Abdoulaat ne ko ah lii la Modou Anta wax dëgg la de parce que yaay suñu baay yaay njaboote ñëpp mu ne ko kon def leen loolu te yaakaar naa ne loolu kilifa rek moo ko waaw amoon na ay naal ba ñu mas namaa mu won ma ci téléphone am nii ne ma kii kan la ma ne ko kii de Macky Sall la mu ne moom laa doon waxal télé laa la bëgg ubbi barke Cheikhul Khadim mi ngi si dëgg maa ngi si fen mu ne moom moom laa doon waxal wax naa cee moom ba juboo télé laa la bëgg ubbil dinaa la jàppale ci liggéey ba doo ñeewati sa benn morom kon nag deme na ni sant yàlla rek. mu sa confident la woon di waxtaan ak yow lu ana waa père moom bi ñuy mujj a déggante yaakaar naa euh, ci biir koor gi la xaw ma avant koor gi parce que am na bu ma fi ñëwee daal boo xamante bi ni waxtaan nan waxtaan bu yaatu ci wàllum liggéey bi waaw bam ne daal léegi dinaa génn sept million teg ko pour ngeen jënd ci ay matériel waaw may dégg mu woote def lépp wax ma lu ngeen soxla lépp lépp lépp ma wax liggéey bi luy problème bi lépp lépp am na benn kii local bu ñu ubbiloon fële Bourguiba yàlla xam na ne da doon xëy di fa dem di ko xooli te boobu feebar bi xaw na ko bàyyi nii ba muy jëlaat ay téléphone am mën a wuyu mën a def lépp te doon dem di ko xoolee ne bu paree de foofu noonu samay signature sax dinaa ko fa def samay signature sax foofu lépp mën naa ko fa def kon nag yooyu yëpp ay naan la woon li naan ku dee rek bàyyi mébét en tout cas yal na ko yàlla xare àjjana kii di Maguette Mbengue nekk doomam waaye tamit mën na ni moo jël relève bi depuis boobu ba léegi moom la gis ci arène bi yu demee noonu lan ngay wax Gaston ak liggéey waaw makan moom xam naa ne dinaa ne du diis dina diis du diis parce que tamit 4 avril 2021 la ñëw jël lenge yi boobu ba tey tamit mi ngi doxal te boolewu ci ak i waxam père nee naa la ñu bëri makan lañ xam te kër gi yéen a ngi romb ay doomam góos ak duraat yéen ngi romb xaali yéen a ngi romb maanta yéen a ngi romb Mouhamed yéen a ngi romb Assane yéen a ngi romb ñu bëri si kër gi mais xamoo leen leen parce que tamit ba liggéey jotee dafa jël doom yëpp kenn ku nekk mu placé la fa nga war a dem liggéey nga dem liggéey jouru làmbam ay doomam dañuy ñëw ak ay jarbaatam nekk ci porte yi wala ñu nekk feneen nga leen di romb gauche et droite doo xam mhm. te yaakaar naa bépp promoteur bu nekk ci làmb xam nga ku mu bokkal mais Père Gaston daanaka ñu dul ñu ko xam dëgg moo xam makan rek la gis loolu nag moom prévoir say doom bëgg na njaboot ñi mel na njaboot ñi mel na poosam benn njaboot du jooy ci dara te yëkkatuwul jox parce que ba jàng jotee jàngal na leen ba yar jotee yar na leen ba liggéey jotee uti na leen ñu liggéey kon nag ñu koy sant bu baax moom makan wax dëgg yàlla di ko wax na ko yan bi diis na meena na góorgóorlu parce que mooy taaw mooy papa yàlla jubale kook ay rakam jubale kook ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi nekk te comme seen papa moom yar na leen yaakaar naa ne macha allah jàmm rek la leen di suñu borom defal incha allah. lan ngay wax soxna yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di njaboot gu sew nga xamante leen fi bàyyi te ñàkk waaw di leen ma sow rek di leen ma sow ñoom ñëpp moo xam ñi nga xamante bi ni mooy soxna makan ñaari soxna yëpp ak soxna Mouhamed ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di masawu ak famille bi yëpp waa di ko jaale aussi tamit maman Ndeye Marie ak Ndeye Awa suñu ñaari yaay yooyu tamit ñu ngi leen di masawu bu baax waa di leen wax ñu muñ rek parce que suñu borom dafa wax ne xalaxal mawta wal xayaata dee la njëkk a bind comme dund ba pare nag kullu nafsin saayaxatul mawti bakkan bu ñam dund dina ñam dee na ñu yàlla sutural daal ba dee bee yàlla suturaal ko mu nekk noof laayam suufu Tuuba suufu Yoof woyof ci kawam bi jaay Seydina Mohamed jërëjëf